dalal ñi nga xamante ne ñooy délégation bu corps diplomatique bi nga xamante ne juróom ñaar fukk ak juróom benn délégation lañ am na ci fukki ambassadeur ak juróom-ñett ñëw nañ tey bokk seeg yow bis bi ci niñ leen wooye woon ñu def ko nañ ko daan defee waaye

ndax invitation bu xaritoo bu mbokkoo gi nga xamante ne bii moom nga leen yónnee ba tax ñoom ñëpp ñu sawar a jóg wuy si la ci nañ ko daan wuy nañ la daan wuysee mu ne ñoom ambassadeurs yi yi fi toogal seeni réew ak ñi nga xamante ne bii ñoo jiite mission diplomatique yi yi nga xamante ne bii ñoo fi nekk e consulaire ak ñi jiite consulat yi ak ñi jiite ñi nga xam ne mooy organisme internationaux yi nekk senegal yëpp nee na ñoo daje tey moom mu jiite leen nga invité leen ñu jóge ci toogal fi seen réew ci bitim réew ñoom ñëpp ñoo am mbégte ak bànneex ak sagu ci ñëw tey di la sargal di la ndokkeel fu ndokkeel gën a kawe fu ndokkeel gën a rafete ci xew-xew bu màgg bi nga xam ne eh, ñépp xam nañ ne xew-xewu jàmm la xew-xewu diine la xew-xew bu sori ci xoli nit ñi la muy eh, màggalu Tuuba bi ñuy def ci atum 1445 junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom dajante ak 2023 euh, muy ñaar fukk ñaar fukk ak ñett ci atum euh, mi nga xamante bi mooy grégorien bi ci bi ñu jàpp ci jant bi mu ne ñi ngi ñaan yàlla mi nga xamante ne bi dara tawu ko mu yokkal la wér gi nga soxla pour mën a wéyal liggéey bu am solo bi nga xamante ne bii yaa ngi koy liggéey ca mu jëm ci jullit yi jëm ci réew mi yëpp nee na jëm ci ñi nga xamante ne bii jàppale gooy jàppale ñi nga xamante ne bii yàlla teg na réew mi ci seen loxo muy gouvernement bi te président Macky Sall jiite ko mu ne xam na ne sa loxo jógul ci lépp luy defar réew mi. moo xam lu jëm ci lu yëkk ci réew mi la moo xam lu jëm ci wàllu koom-koom la moo xam lu jëm ci wàllu cosaan ak aadala ndax Sénégal moom ni ñu ko jàppee réew la moo xamante ne bii réewu teraanga la bu mën a daral gan kon gëm nañ ne fekk fi ñu mel ne yow ak ku mel ne yow day doon rekk ngëneel yu mag ci ñoom ci réew mi ci àddina bi yëpp nee na daal loolu la amoon ci lu muy wax waaye nag mi ngi baamtuwaat ne di la sargalaat di la kañ ci sa liggéey bu rafet ak fi ñu la teg nga xamante ne bii fu kawe la xam ne ne itam yow fi nga leen teg fu kawe la asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Donc maintenant, nous, projetons à donc, appeler les délégations, les ambassadeurs, d'abord par le euh, les noms de leur pays. Nous euh, we will call, you know, by uh, by country, the you know euh, the excellencies, the ambassadors, to come to greet euh, le Khalif. Vamos a llamar pour país los, los venir para saludar euh, son eminencia, uno por uno. Son Excellence, l'ambassadeur du Cameroun, Jean Tonga, vous pouvez venir saluer le Khalif. L'ambassadeur du Cameroun, doyen du corps diplomatique. Le Khalif général Mourid, Cheikh Mohamed vous remercie pour partager donc avec lui ces moments de choix et de protection. Donc, il vous remercie infiniment pour faire le déplacement, répondre à son invitation, et son aimable invitation, comme, comme vous l'avez donc exprimé. Donc, il sait que le temps est long, l'attente a duré, la raison pour laquelle il ne pouvait pas dire tout ce qu'il voulait ou dire et tout ce qu'il voulait donc, euh, donc exprimer euh, des, euh, profond, des, donc, son, son cœur profond. Enam, euh, sans le souffrir, le Khalifa Talam le Tarikh al-Muridiya, yashkurukum, wa yuhannibu dhalika li musharakatihi هذا الحدث يعني العظيم رغم ما عانيتموه من المصاعب ولكن لقد أجبتم يعني بأحسن حال يشكركم ويتمنى لكم عودة ميمونة ويدعو لكم ويتمنى كذلك بعون الله تعالى أن نلتقي أعواما عديدة أن يكلل الله جميع يعني خطاكم ومسعيكم بالنجاح you know, to Caliph General Murid, thank you all to come here, share with him this great moment of blessing and, you know, pleasure. So, you know that, you know, you face many difficulties to come here, but, you know, you answer to his, you know, you know, invitation. Bueno, Su Excelencia les agradece de venir aquí responder a su invitación. Es momentos de benedicción y de espiritualidad. Gracias a todos. Inshallah, euh, euh, deseamos veros euh, muchos años adelante. Gracias a todos. ñëpp tàllal te ne ko ñëpp ñaanal moom itam yàlla bàyyi ko fi ba mu yeggale liggéey bi mu liggéey te ñu ànd kook moom you know euh, dama waa pour pour vous donc je vous demande de prier pour lui aussi you know ask all to pray for the Khalif General he will pray for you I ask you all to pray for him because we want to be with him years and years till he accomplish you know, all his mission. And he wish you the best, you know. You know the Khalif General de Munit uh, uh, will va uh, rogar, pregar para todos. Os ruego de pregar, de rezar para, para él también, porque deseamos acompañarle muchos años adelante. Gracias.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 هما بي هلا هن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا